waaw salam, salam, mbokk yi maa ngi leen di nuyu waaw mbokk di bëgg a wax ci benn élément bu am solo ndax dama dégg Mola Morgan laal benn point bu sensible benn point bu am solo di wax militantisme kan mooy militant ak kan mooy sympathisant di remercier Mola au passage ci wax yu am solo yooyu militantisme waaw mola moo gën wax na dëgg am bari dañoo parce que yor nañ carte de membre fekk ne sori nañu Vous militantisme xamuñu ko sax am ci ñoo xam ne dañoo jàppee seen ay sympathisants amuñu carte de membre adhéré wuñ ci parti te fait que nous avons un comportement militant nous sommes véritablement les militants de Pastef militantisme conviction là engagement là militantisme dans ngay dem sax ba dalay jaral sa am ñu seen bakkan ci militantisme ndax buñu bañu buñuy projet day nek conviction ci ñom nek diiné ci ñom ñu gëm ko mu jaral leen lu ne militant du sympathisant damay def ben comparaison rek pour waxtaan bi gëna accessible pour que sénégalais yi kay déglu yépp mëna comprendre véritablement li ñu bëgg wax fii dangay jël maanaam diine moo xam diine jullit bi la moo xam diine katolik bi la ba ci biir diine bi da ciy am ay militants am ay sympathisants te moo ni ñoom ñëpp a gëm kenn mooy militant wu yàlla militant wu yàlla mooy ki nga xam ne du faat waxtu ci saa su ko mënee militant wu borom bi mooy ki nga xam ne. bu waxtu julli jotee lépp lu mu jàppoon da koy bàyyi da koy bàyyi julli waxtu bi ba pare doog a nekk ci leneen saa su ko mënee militant wu yàlla mooy ki nga xam ne bu gisee doomu aadama bu sonn mu mun koo dimbali te yàlla rek tax dina ko dimbali te ma sàmba du yëg ma demba du yëg militant wu yàlla mooy ki nga xam ne gis na loo xam ne bu ko waxee musiba am mu denc ko du ko wax mukk militant wu yàlla mooy ki nga xam ne bu gisee ñuy noot moroomu doomu aadamaam jaay ko doole mu taxaw lépp lu mu mën mu def ko ci militant wu yàlla mooy ki nga xam ne day nekk même dans l'esprit day sax dépasser la lettre mais day nekk daan l'esprit maanaam lañu ko sant dana dana ko def ba def maanaam lu ko ëpp comme ki nga xam ne dañ koo sas julli juróom waaye saa yu guddi jotee mu jóg di naafila pendant deux heures de temps wala trois heures de temps mu jóg di naafila militantisme dafa foor sympathisant bi nag mooy ki nga xam ne bu julli jumaa jotee sax léeg bu xawul nekk en forme bàyyi mu jàll boo waxee mu ne yàlla borom yërmande la effectivement yàlla borom yërmande la léeg-léeg bu jullee tey du julli suba kooku sympathisant la tant mu ngi yor comportement boobu ci digëntéem ak boromam na japp ne mom sympathisant la té borom bi nak buy gërëm ay militant lay ñëk a gërëm ñu bayyi xel rek ci différence bobu dafa am solo motax man damay ñaan parti pastif avons xam section yi cellules yi nañuy séminaire ngir jàngal ñi nga nous, ne dañoo jàppee seen bopp ay militants ñu jàngal véritablement mooy militantisme ndax Ousmane Sonko bu ne serait reste mille militants mille large mille Ousmane Sonko bu amoon na serait-ce mille militants bala nga kay ray da nga ray mille yëpp doog yegg ci moom dama bëgg ñu Sénégalais yi lu baax may waxee dama né président Ousmane bu amoon na serait reste mille militants bala nga kay ray da nga ray mille yëpp doog yegg ci ci ki xam niveau militantisme Che Guevara dafa amone ay militants yo xam dañ doon and ak mom duggu ci àll bi di fanaan ci àll bi mettre sen seen vie en jeu à tout moment ñu mën leen liquider ñu bàyyi jabar bàyyi dom bàyyi lépp ndax sen conviction té ay véritable militant ci cause bi nga xam mom la Che Guevara doon défendre fofu lu ñu bëgg Sénégalais yegg fa ak Ousmane Sonko ndax projet bi nga xam mom la porter Nam deug la sympathisants yi sax ay jambar lañu ndax wax deug yalla ñu ngi def seen lay katan bu projet bi sympathisants yi ak militants yi ñi nga xam ngi militant ak quelques militants yi ci ñoo projet bi yegg dafa ñu dimension véritable militantisme militant xamul luy poste militant du xëccoo poste militant bi liko ñor moy projet bi aboutir te képp ko xamné ne na ni mën nga andi un plus képp ko xamné ne na ni mën ngaa dooleel projet bi mom paré na pour sacrifier lépp pour que yow li nga am ci savoir ci connaissance ci apport nga addi ko le véritable militant du xëccoo et situation du la wax ne maa la fi jiitu ndax ki nga xam ne yaa ngi tabax sa kër sa kër nga koy tabax am ay jafe-jafe ay nit di la jàppale ki nga xam ne moom moo doog a ñëw léegi-léegi àndaale cinquante tonnes ciment danga leen naan bàyyi leen ko mu jàll ndax ñun li ñu bëgg mooy kër gi yegg te kii li mu andi nii bu ñu ko dugalee ci kër gi léegi mu yegg kon ñu ko xaarloo parce que ñun ñoo ko fi jiitu déedéet dañ koy bàyyi mu yegg si nañu ko jiital moom ñun ñu topp ci gannaawam ndax moom moo yor li nga xam ne kër gi mën naa yegg te fekk na moom ba mu koy def yàlla rek a tax mu koy def kon dafa am solo ñu xoolaat toogaay yi Mola limwaklu wax lu am solo section yi cellule yi organiser leen séminaire jàngal ndaw ñi lan militantisme pour ñu nekk ay véritable militants et non des sympathisants man dama jàpp ne sax carte de membre bi carte de membre bi bala la koy jox war nañ la nga xam yow li nga bëgg ban engagement moo ci ne waaye ñu ko banaliser noonu rek déedéet dëgg la parti passif, nag dafa nekk parti boo xam ne dafa teel a màgg biñ ci am du lépp lañ mën def wax dëgg yàlla ñi nga xam ne ñu responsable chef de cellule responsable cellule section coordinateurs yi wax dëgg yàlla ñu ngi ciy liggéey liggéey bu am solo mënuñu def lu dul di leen félicité ndax bu projet bi yeggee fii tey seen liggéey moo tax projet bi yegg fii waaye ñun dañuy ñaax rek dañuy ñaax joxe sunu xalaat rek pour yëf yi gën a baax bu ko defee ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci déglu bi leen jox dig daje beneen yoon incha allah.